man affaire bi dafa ma soke xañ na da ko bañ ak haine bu mu ko jàppal ak yéene bu bon bu mu am ci moom parce que li mu jàppee moom waa këram sama jëkkër jàppee ko waa këram comportement bu mu nekkee waa këram sama jëkkër nekkee ko waa këram yi bëggoon na moom lu mu nekkee waa këram yi ak sëram yi ak frèram sama jëkkër nekk comme moom même chose famille bi tasaaroo ñëpp ku nekk dem sa dem mais sama jëkkër depuis yaayam gaañu mi ngi seen biir kër génn fa bouger fa muy neex mu ngi toog muy naqari mi ngi toog moom nag su neexee moom ak waa biti bi la su naqaree moom ak waa biti bi la sëg koog waa kër gi suñoo defal cent franc lu dul wër di yàq suñu der di wax ni moo ñu yor weer bu dee moo ñu yor weer bu dee mooy fayal sama doom école weer bu dee moo ma yónnee soixante quinze mille pour ndimbal ba musuma defal dara lu ma am si biir kër gi sama jëkkër moo ma ko defal ak ay sëram ñoom ñooy gis ni am naa sax soxla bii ñu fajal ma ko fekk na sama jëkkër yegul salaamaaleykum mosuñu ko defar lu dul nekk ci mbedd bi sàmm àllaar moom nag moo xam lu mu ko bañee moo xam lu yéene bu mu am ba mu def ko ni mais yàlla nañu yàlla àtteeg moom man ak jabaram ay xarit lañu depuis mu ko takk depuis boobu sëy siwul ne nekkul ci kër gi mais depuis boobu ñi ngi demalante ñi ngi ñëwalante ñi ngi dem ñi ngi ñew domam ñom ñepp ñi ngi mom ak sama domi ñoy nek chaque weekend damay dem jëli domam ba seen kër mam, ñew indi ko si kër gi xalé bi def fi weekend bu weekend passé mag pap rak papam bi mo koy taalal motom dem yobbu ko ku nek lo am nga jënd ko jox ko mu yobbu ko xalé bi chaque weekend day joy ni day ñew si kër gi man jabaram jabaram mosuñu am ben problème tay bi nga yégué ni japp nañ ko defé am lu ma metti am lu ma metti am déception parce que man foogoon naa sax jàmbur mooy jóge ci àll bi pour tëj nit mais nit koo bokkal ndey ak su fekkee leer na la leeral yàlla yow moom moo la lekkal war nga am xolu muñal ko ko ndax àdduna dafa jeex ba pare nit yi mi ngi jënd kër tabax ko ba mu jekk may ko doomu aadama kon koo bokkal bu la defee lu ni weng yow war nga ko sàng sutura marsa defu la waxu la lu dul bon ak soxor xam ni mom lañ def responsable kër gi te dëkk bi fu mu génn ñu ko sa frère moy responsable kër gi bañ na dañuy jaawale sax mom ak sama jëkkër kan mo mag tam mom mo mëna jur sama jëkkër sama jëkkër moy caat bu goor mom moko mag fuf am lu ma metti am lu ma metti su dëgg rek nexé yalla mais néna ko li dess ci problème bi duma ko joyaat dootuma joyaat sama rongoñ ferna na parce que xamna ki mako sékkal su loon ko bon la duma taxaw devant public ñëpp di ma gis parce que rus naa lool dama am famille mais dama xam sama jëkkër deful lu bon waxul lu bon te deful lu ñaaw ñëpp am lu leen metti suñu waa kër ñëpp am lu leen metti dëkk bi ñëpp am lu leen metti xam naa bu baax genre góor bu ma nekkal du defkatu lu bon tuxul naanul fenul sàccul luubalul alalu jàmbur cent franc bu muy wàccaale ci palaasam da ko doy sëkk am naa lu ma bett ba ci kanam yàlla parce que foog naa man nit koo bokkal ndey ak baay même boo ko soxoree war naa yem sa biir xol mais pas nga koy wane. mais tey jii jëf na ko wane na ko te lu mu wax ci audio famille bi lépp loolu la jëfee tey su ma ñëwee dinaa la tëj loolu la def mais yàlla gëmul nelaw te yàlla na ko yàlla atteeg moom bëccëgu ndara kàmm comme lii nii nii nii ñu toogee nii di ko waxaat yàlla nañ toogaatee nii di ko waxaat lépp leer nañ am naa lu ma metti trop ci moom am naa déception xanaa dalal ko chaque jour maa ngi prison ba bu ma xëyee dama koy dem seeti dalal ko premier jour nag metti na ma trop parce que fanaanal la foo mos a fanaan kaso ak bàmmeel ñoo yem ku wax neex na rek danga koy jaarut waaye ku ci jaar di nga xam ne neexul nee na lépp neex na sëf kaso ak bàmmeel ñaar yooyu noonu lu metti la ci àdduna mais góor la te sëñ Tuubaa moom lañ yaakaar sama doom góor moom lañ ko tuddee te jaar na fa dama koy muñ doo dalloo ko te xam ne lii mu def lii du defet du loo xamante ne tey dañ koy nëbb wala dañ koy làkk parce que lu leer naññ la